sant leen gërëm leen mhm. euh, su loolu weesoo nag euh, Horizon Sans Frontières euh, damay wax ni mbootaayu xeet la c'est une organisation bu juddoo en Espagne en 2006 avril 2006 la juddoo en Espagne ñuy dox ci wàllam immigration Horizon Sans Frontières nag ban koy samp waxuñu nit ku ñuul waxuñu nit ku weex waxuyu naar àddina lañu wax man mi je suis le président fondateur mais boo xoolee ñun ñi nga xam ni sax ñun ñoo enregistré wu côté européen bi ñu koy jox ñeneen ñëpp ay nit ñu weex lañu ay tubaab lañu donc loolu moo tax ñu teg ko euh, mu nekk un lien de concorde entre les peuples pour jàmm àddina mm-hmm. euh, ñu tënk ko ci wàllu migration parce que migration moo yore àddina mm-hmm. parce que tey dañu nekk dans un contexte mondial de mobilité croissante des, des populations ñëppay tukki wax nañ ne plus de un milliard de personnes ñu jéggi chaque année une frontière wax nañ ne tey migration dafa nekk l'un des éléments essentiels de la géopolitique mondiale dafa feeñ fu nekk parce que dafa transversal gisoo feebar bi mu commencé ma ni leen woon le principal vecteur de propagation c'est la migration du fait de la mobilité moo tax mu tas ci àddina bi parce que Chine la juddoo Euh, doomu aadama dafa fort xale yaa ngi dee ci géej gi la jeunesse africaine tey la migration dévoile des aspects aux conséquences incalculables dans nos société en situation de vulnérabilité chronique ñaata nit ñoo dee depuis 2014 plus de 15 326 entre 2014 et 2017 euh, nit ñi ñu leen di rey euh, ñun ñu jóg bis ñëw fekk ma sama bureau Espagne mooy boo xoolee c'est la théorie Euh, la théorie de la double théorie de de, de Florence en Italie ci la ma nit fekkee sama bureau mu ne ma ah yow de Boubacar war a toog noppi gis nga xew Italie ma ne ko waaw. Euh, boobu nag la ñu wootee benn pétition ñu ngi woo àddina bi yëpp pour relancer le débat sur une meilleure gestion de ces flux migratoires là. d'accord nit ñi di ñu tontu. di ñu tontu ba mbir mi am pratiquement dëkk yu nekk am ay nit ñoo xam ne dañu taxaw. ñu dañ ci bokk. bi ñu demee ba si yàgg nag ñu xam ne liggéey bi Afrique la. il faut sensibiliser ak yeneen ak yeneen. ci la ñu takkee suñu bagage jubal ci Afrique. Euh, bi ñuy jubal ci Afrique tamit. mënoon nañoo dem faneen. mais man Sénégalais laa. ñu ñëw fii. d'accord euh, pour euh, di ko dox. gis ngeen liñ ci mujj jur. donc mm-hmm. loolu mooy horizon sans frontière mu nekk aussi c'est bon de le préciser c'est à lucratif. Mm-hmm. c'est bon aussi ñu leeral parce que ba ma déggee prison dégg naa lu nekk. effectivement kenn mësuñu cee fay dërëm. je suis consultant et chercheur. su ma ci gagné dara mooy dañ maa woo ni ma animé conférence. mais su loolu passé gis nga ñi ànd ak man ñi ñëpp. Mhm. le font ñi koy def de façon gratuite. Mhm. de façon bénévole. Mhm. waaye nag euh, li tax loolu aussi lu bëri dañ ko ci bañ. gis nga le monde fonctionne avec des lobbies. bëgg ñu dugg dara loo xam ne ëllëg dañu ko yedde te yàkkamtuñu dara dara. Hmm. lii mooy horizon sans frontière. d' parce que dafay bëri ñoo xam ne bu ñu déggee ONG rek dañu koy jàppe xëy na mu nekk organisation boo xam pour pour am xaalis yu demee noonu. gisoo maa ngi wax journaliste yi bu leen waxati ONG dee leen wax rek horizon sans frontière. parce que soo ONG rek xam nga Sénégal moom Afrique. Hmm, hmm, euh, ONG ñu lekkee xaalis. je vais vous faire une anecdote. Euh, chaque mois de septembre. dafa am benn journée benn les ONG européens yi nekk Afrique fii mm-hmm. dañuy réunir ñu wax moom la ñuy waxee seen bopp de coopérants voilà des expatriés on se réunit chaque huit septembre su ma jumul mm-hmm. mais mais soo gisee ñi fa nekk ñoom ñëpp ay président ONG da nga leen di yërëm mm-hmm. Afrique nag suñ la nee président ONG rek mooy mu ngeeg loo xam ni moom lu kenn xaw ba tax na loolu dafa ñoo topp tey moo tax ma ni leen comme comme mhm. kii de dee leen wax rek horizon sans projet parce que ONG moom foo leen ko waxee rek nit ñi mhm. xalaat loo xam ni mhm. euh, mais loolu yëpp sant yàlla la yàlla nañu yàlla nañ ci yàlla defal loo xam ni dañ koy bokk ak àddina bi lool la ñuy ñaan ci horizon sans projet